alhamdulilah man de tey dama bëggoon ñu waxtaan parce que dama am yéene takk nabu comme soxna waxtaan naa seeg nabu ba pare ma waxtaan samay waajur xamal leen ne dama am volonté takk jabar ñu ne ma loolu lu baax la loolu lañ doon ñaan yàlla léegi avant tout nag ma ne naa ñëw waxtaan ak kilifay nabu su fekkee d'accord ngeen lu ma bëggoon mooy ma yebal samay waajur ñu ñëw ñaan si ma jabar incha allah. ah alhamdulilah rabbil alamin ndax loolu la ñuy ñaan yàlla waajur bu ne rek ñaan nga yàlla sa doom bu dee jigéen la ñu mër ko mu sëy bu dee góor it nga tabaccel ko jabar ah gannaaw yàlla may lañ ci am rek sëy rek lañ koy sant dolli waat sant euh, yàlla julli ci yonent bi. ndax doo ko boot doo ko togg doo ko def ren hmm. mayar nga ci am maa lay wax ne la bëggoon naa dem gisee samay wayjur pour mën a waxtaan ak ñoom ci li ñu mujjee woon wax naa ñoom yàlla def ne ni du ma leen ko waxtaanee wax dëgg yàlla kontaan nañ ci trop ci nouvelle bi ba fi mu toll sama yaay chaque jour mu ne ma kañ laay gis sama goro bi yaakamti na koo gis chaque jour mu wax ma ko ma ne leen tamit foofu dama fa am papa hmm. comme ni ma la ko waxee yaa fi sama kilifa donc euh, ci loolu laa la bëggoon ñaan Euh, boo ko nangoo ma jël sala ñu ànd ma wan ko samay waajur incha allah.